Mais il est dans son rôle de posant, dans son rôle de nihiliste, de nier l'évidence. Il est dans son rôle de convoiter le fauteuil présidentiel parce qu'il dit être né pour être président. Moi, je pense qu'on peut être utile à son pays à quelque station qu'on soit, président, DG ou ailleurs. Vous me voyez, j'aspirais à la magistrature suprême en 2012. Aujourd'hui, je ne suis même pas ministre, je suis DG. Je sers mon pays, je permets la mobilité, je modernise le transport sous le contrôle du chef de l'État. Et ce dernier, essayez de lui proposer un poste de directeur général, au Il le refuserait parce qu'il pense être plus fin, plus intelligent que toute la planète. Moi, je pense qu'il doit revenir à la raison. Parce qu'avant d'atteindre le chef de l'État, qui a fait quand même ses preuves, lui, il a, on l'a testé. Il a eu zéro pointé. Avant d'atteindre le chef de l'État, c'est de passer par nous-mêmes. Parce qu'il n'est pas plus érudit que nous. Moi qui vous parle, je suis sorti de la Sorbonne, Sorbonne. Lui, son diplôme même est nébuleux. Il n'a qu'à venir nous affronter dans un débat. Il n'y a pas de problème. Avant lui montrer. Hein. le 21 novembre, nous serons à Thiès. C'est ça aussi qui est un problème. Vous avez raison. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les jeunes, les femmes se mobilisent pour redonner un second mandat à celui qui a travaillé et non à celui qui passe tout son temps à bavarder. De la grande offensive pour la reconquête de Thiès ana Boubacar je suis suñu représentant Thiès parce que bëgguñu bàyyi koo xam ne day lambar lambar ci réew mi ñëw ba Dakar di door ay missile am di koy fekk fi nga xam moy kërëm tégal tegal ko foofu ay missile politique c'est ça il faut aller le combattre là-bas ndax loolu rek moo ko dese ah wax ju bëri jógee pour cent dégré nga la pour cent amoo looy wax du président Macky nga xam ne si président yi gën a yaru si Sénégal ci la bokk ñu ñu amoon amaguñ di naan président respecté wul diw respecté wul diw respecté wul Ablaye Wade moom lan la waxoon Ablaye Wade imaam bëgguma ko boobu lu mu waxoon Ablaye Wade te dinaan président Macky Sall respecté wul Ablaye Wade lan la ko wax naka la juddoo naka la ñëwee ci àdduna bi ak fu mu jaar am na loo xam ne mënoon na ko ci boole moom mu tas réew déet déet déet bu lox boobu déet man man bëgguma ko wax ci kaw imam ngi fi wax day rafet wax din koy wër wax day rafet je n'ose pas le dire ici parce qu'il y a l'imam mais ces gens n'ont pas de leçon à donner ñoo xam ni defal di leen confiance nommé le premier ministre ngay signé ndoog président bu signé droite nga signé gauche nga signal sa bopp genn di naan damaa juum signature bi wala dañ ma forcer fat Sénégal bi nako dem wax gambi xam nga li nga signé te di yàq der nit bu la wolo jox la confiance sa ngor warul génn nga li ngeen sékkon nga koy génn ci biti tant que moom cherché wu le président Macky Sall do